wuyu li nga may woo maa ngi dégg gis say appel mais mun li ma nekk nii mënu di wax ay téléphone yooyu kan non mën a ñëw mën a ñëw li am fii nii li kër gi toj na bel mën a goo ñëw kër gaa ngi toj yëgoo li fi xew toogal toogal rek boo waree ñëw man dinaa leen ñëwal lan waaye ma ne yow bu yeboo nga joxe quatre cent mille ba ma joxee quatre cent mille it a goo ñëw linde miel yi lan ban linde miel yow dama ni loolu du wees kër gi non mën na koo ñëw ci kër gi yow toogal rek toogal toog dinaa gérer lépp toogal waaw waaw waaw waaw d'accord dinaa la woo d'accord amul problème dinaa la woo d'accord kay dossier suba ngoon eh nga naan dossier yow yaa ñeme ba toog lune de bi nag may wax nga koy lijjanti mën nga koo lijjanti mën ngaa dem Mbour wala nga dem Île du Saloum wala sax bu la neexee jarul ko comme dafa tàng mën ngaa yem ci hôtel yi ndaw yi yem ya yi nga yóbbu fa bu yow yaa bon yow ba yaa yées ba yow matu kilifa benn yoon yow ba ban façon nga yow daal xaalis rek ngay jaamu yow ba yaw ba sax yow est-ce doo tëdd ba xaaja guddi sax yow daal di toog nag di jaa di daal di yor sa xaalis rek daal di toog di ko jaamu ndànk raay raayal ko daal tëddaat nalaw pourtant yaa ngi say 12 millions li nga yor jeexagul xale bi jënd la ndax xaalis nga jaay sa ngor ba ni nga mel ñaaw na yow jullit nga est bu nit ñi wax nga jël sa kanamu innocent bi teg ko te yaa gën a yées ay ba ngir yàlla war a suul tey ngaa changé ba musiba bi nga indi ci kër gi pour lan la yow boo tiimee faat ki ne hôpital sa yaram du daw. yow amoo sax xol wax ak yow sax yàq ko la. fàkki ne ku ko yóbbu hôpital mënoo la yàlla wala bu daa ah, ah, nga naan ma da ngay tëdd ba guddi ray xaalis ñaata yoon la fanaan ma ak yow da maa gis may ray xaalis ah, dama lay laaj rek danga maa gis ndax man man ma yeewu di laaj xaalis ñaata yoon yenn fanaan nga naan ma lijjën te lindi ma xaalis ban xaalis laa jaamu. waaye man li kilifa war a def laa def def ko. yow da ngaa mat kilifa. man matuma kilifa. yow da ngaa mat dara. kon yow ñàkk nga fay fayda. lan moo tax say waajur jox ma la. kon yow ñàkk nga fay yow samay ah? waajur bu ñu géntoon lii ci yow xam nga duma dugg ci yow. yow boo ma wanoon lii au début xam nga duma dugg ci yow. waaye man dara weesu dara weesu di wax kese ngeen di def. yéen nag da ngeen a réew man ngeen def moroom waaye mbedd mi da ngeen a respecté man du ma seen morom seen kilifa laa waaw xam nga li ma la man li ma war a def laa war a def bu demee hôpital yàlla ko fa yóbbu wala wala ñi ko wax. waaye du man si yow génnoo ci. lu ma ci ma ci duggee. yow génnoo ci yow yaa dem takki jabar. waaye bañ a takki man buñ ma yónnee ma dem ñaani lan la bel du jàmbur ah. mbokk la deretam la. Hmm. ñoom ba ñuy nobante du tey waa te man la may daw ba def takk gi xam naa ko parce que da ngeen di gone rek la ko ñu naroon fekk moom bu yéen xamu leen ko la ko ci naroon fekk ñetti pelente nga woon di ko xaar waaw mais nag yéen toog leen fii ci kër gi rek. jot seen effort diggante cour beeg saal beeg fii defe ne loolu la àdduna weesu na foofu problème bi da ngeen xamul lu ci biir. waaw man dara laa deful. nga naa ma jàmm sama jàmm gis nga problème bi bu mënte am. nit dañ koy lijjanti. waaye yow xam nga ni Fatou Kiné du toll fii ngeen ñëw di ko takkal wujj pour lan. waaw moom mooy xanaa moom du jigéen ba. wër ba ci lan. waaye ah. yow yéen ko defee dafa ñaaw ngeen xaar sax ba mu wasit ah, comme nee nga da ngeen jaay na mbokk la di woote na mbokk la yéen baadoo la pire ngeen ay reykatu nit ngeen ngeen yéen ngeen fi mi sa dugub fu ngeen xaj dugul xaju leen fa ah, voilà xajuñu fa xaju leen xajuñu fa xaju yow bu farki de dee di nga am gàcce ku ko sàkkoon na koy rey du man yàlla ko sàkkoon man ba xam nga lu ma jaaxal ci yow sa làmmiñ saf na ne bool bu bees waaw dama ni yaa ko gën a safle yow ku wax rek tontu ko parce que da ngeen a réew ba xamul leen ban sa ban morso lañ leen boote def ma morom

man damaa amul sax temps toog amoo sax maami sëriñ fi mu toll nii damaa la doon dem maasa waaye dootuma ko defar ndax mënumaa dem ndax xol bu jeex oh, ba xalaatee sa xol jeex waane bon seen benn xol jeexul yéen ñëpp waane saabu yooyu yéen ñëpp waane toppal fële waaw nga ne ku ne usine fële da ngeen a waane sob réew man dama leen a faale li ma war a def laa war a def mooy kan ba doom wujju waay euh, maman su na ngeen def maman Ndeye na ngeen def ça va bien. li ma la joxoon jël nga hmm, ngi koy maa ngi koy jël maa ngi koy jël maa ngi koy jël en fait euh, euh, euh, am naa lu ma naqari tey torop torop sax vraiment wax dëgg yàlla maa ngi leen di masawu bu baax a baax ci di fi li fi jot a am ah. vraiment parce que tamit man bu dama doon jël référence ci moom ah waaye parce que man xam nga dama bëgg suma jabar man am na yoo xam ne tey bu ma ko defoon moom franchement xam naa ni damay dem ma xaaru ji rek quoi mais vraiment. maa ngi leen di masawu bu baax a baax a baax di leen masawu euh, yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj voilà voilà daal xam naa ni euh, am naa lu ma nakar yi trop daal franchement am naa lu ma nakar yi parce que foogiwuma woon lii nii quoi voilà voilà foogiwuma ko woon bon parce que tamit couple bu couple bu ma bu ma bu ma neexoon la couple bu ma neexoon la kon donc am na yu bëri yoo xamante ni euh, su amee rek après man damay daal di ruus ko Bathie d'accord dégg naa li nga wax fi mu toll nii wax dégg yàlla wax ju bari ji du du ñu arrangé ndax ñun fi mu toll nii ñun ñëpp stressé d'accord da nga doon masawu jërëjëf. sant yàlla alhamdulilah métti trop franchement am naa demande waaye nañ delloo lépp si loxo yàlla rek ndax suñu borom ci boppam moo ñu saax waaw te moom bu soxlaa ñun ñëppay ñàkk donc sant yàlla alhamdulilah waaw. man la xëy trop franchement gënoo ma ko woon quoi désolé yàlla baax na yàlla moom bu soxlaa moom keneen ku bëgg dangay ngay ñàkk uh-huh. donc uh-huh. Uh-huh. bu ñam doonoo di nga ñam de ku li naf a laal arab xam naa li nga war a sànni balaa jooy di la yóbbaale ba doo nga fàtte ko non en fait euh, waaw man sax day dexal daa ñëpp dexal kan bu sànni rek benn yoon euh, kon garaawul naa bàyyi euh, incha allah ba mu am beneen dese bu gën a mag rek bu ko defee ma indi suma jaaxal. beneen dese fan ci gi. non non dégg mu wax kat as. ah léegi dese bi gën a mag si kan nga koo féetale man mi ah ah xanaa waxoon na. ma la bëgg na nag. ah sa wax bi rëy na de. sa wax rëy na trop ah, ah waaw. dese bi gën a mag xaar ko sa kër. déet bu ko xaar këram lu tax xaar këram te man ne ko yow man ne ko man aw ma yaay kon waaye moom sa tur. lu la ko dese boobu na ko xaar këram. sama doom dafa ne waa déedéet waaye yow loolu du sa wax. yow loolu du sa wax tudduma turu kenn amoo xel. warul wax baa doola nga waaw mais moom bu xeloon nag est-ce que yow la tudd. ah waaw loo koy jëmalee ba këram. déedéet ma doom ne fa xanaa da nga koy yore sama doom. déedéet déedéet sama doom fan yi yaramam neexul. man sama yaram a neex man man sama yaram da xam naa ne war ngaa gën ci li nga ne yow yaa war a gën ci li ne war ngaa gën daal ci li nga dafa mel ah, ni nga jël ko sama doom mais da nga am ma ko ki dee ba pare nañu nañu ruus ki dee ba ah. pare da nga eh, doon masaw masaw nga bu bu dikkee dinañ ko ko jógal nga dem voilà ngeen jaaleel ma ko bu baax yàlla na ko ci barke yonent bi ah. eh, merci beaucoup mel ni xar buñ tay re gay na noonu cim say wax mukk doo ko mesurer say wax doo ko xool mukk da ngay jékki-jékki rek ne tell wax lu ah, rëy waaw moom wax lii mu wax moom est-ce que wax naan ko yàlla na yem seen kër te sama doom di fa daagu këram ñaata nit du sa wax laa wax du sa wax bu fa këram ñaata bu fa fukki nit nekkee sama dooma fa wéradi ah, waaw man nag sama fa ah, wéradi waaw man nag li ma dal du wéradi xel moom amoo ko man xarit bi ngay woote sama diggante yow gawuma ko gawuma boo yéenee sama doom dee man gawuma xarit bi ngay woote sama diggante baax na amul benn problème yaay booy maa ngi lay masaw bu baax xam naa ni metti na ma lool waaye yow it metti xam naa fii la Kiné toll xam naa it li la Kiné jaral man nag awma lu gën Kiné Kiné rek laa bëgg te moom laa mos bëgg te jàpp naa ni jéem naa doon jëkkër ju baax waaye tey lépp lu ma liggéeyoon rek na sax na li dal si kaw sa kaw dal sama kaw metti na trop lu koy muñ loo yàlla rek dama ñëw ba fii ma saw la man moom xamatuma yow fan laa la war war a boole man moom jàppeetuma la nit ndax yow doo nit ba yow yow nit yow yaay jaam eh. ba yow lu tax xaalis jaral la lu ne ah, li nga def nii alal la ko jaral yow man foogoon naan sa bëgg xaalis gi di nga ko de di nga ci def lu ne ba mu des tayle bakkanu nit. man damaa tayle li nga def tayle bakkan na di yow lu sa yoon ba ngay takk say ba lan moo sa yoon nga yër sa 1000 francs jënd sa ñetti doomu guróog sa ñaari mante fraise naan dangay takk say ku la gën a bon amul nag nee na tuuti de diwu la lii ku baax la boobu ba tey ba mu fi ñëwee ba tey sa naqa dalaa dëddu wutee ummi mi fi nekkoon di la dëbb ci gën a kuur mu su la fee def lu kenn yëgul nag lu baax rek la la la fi yàgg def di la toggal lu neex di la jox. kan moo def lu baax. nee na tuuti. kii bërki dem rek xajuma fii suukaru koor nga ñi ngay def lu nekk. naan jëkkëram nañ xaaj njël li ni jëkkëram nañ tuxu wuti. appartement yow yaay naar fekk yow. du naa fekk. si yaay naar fekk. damaa fekk maa fekk la police bëgg baaxul. xale bi nga jël jël lépp teg ko ci kawam dindi ko ba mu set yow nag jaam nga man moom tey laa la bàyyi ma tey laa la bàyyi définitivement ndax lii ku ko mën a def xam ne kii moom mënut man moom lii yoo ma fi ba ndax kenn du ëmb di ñaan divorce dama dama dama yow bu la bu la neexee sax boo wasi ne bis ba nga ñaan divorce foo ne man fi man dama ni man bu imaam yi wax ko ne yaa ngi dégg nga yow mais a naar fekk ñëpp kii kii dama maa jox man kii damaa jox cër ah man li ma war def laa war a def parce que da ngeen di gone te du ngeen gis man lii bu ma ko deful woon man dara lii mbir yàlla la mais man damaa dem damaa dem takki sëy doon faj problème yàlla dogal yàlla dogal lii lii am ci lii nag dogal yàlla la yow nan nga xam booy bi ñetti plainte la dugal bel ñetti plainte la dugal ndax li ko bu li ko bu violé woon enceinte ko yaa ngi dégg brigade recherche eh, eh, ñi ngi ci waa dig ñi ngi procureur commencé woon na di wax ci dossier bi may may dogalee loolu yéen ngeen a da ngeen a xamul tey bii bu amul woon bu mën na cee dem kaso. yow li ngay wax yaa dina xam c'est faux. lu tax nga ko. musul am na plainte du dugg dik du dugg fële ci procureur ak eh, fële te du ma ko yëg. yow ñu ne kañ nga gëj a liggéey si. eh maa ngi liggéey nag message bu ñëw sama téléphone laay laay jot laay liggéeyee. li ngay wax c'est faux. ñoom nee nañ sax mënuñu laa jot. yow it ñu ngi lay ñu ngi lay. wala kan la ñu. yow man luñ may wëree yaa ngi ci biir. fan man luñ may wëree. yow de bu ma leen la tuuti léegi nga jot message procureur. wallaahi yow xam nga li ngay wax. yow moom kenn gënu laa ñeme yow moom xaw ma duulaloog nga dëkk xaw ma foo dëkk yow yow man nit nga nag yow du bu daa xam problème bi yëpp yaa ko indi problème bi yëpp yaa indi si kër gi. man la ndax. waaw moom yow nag yow ku la mooy ah yow yow débuté woo problème. yow ban problème la non mais ba nag ba qu'on se la vérité quoi. waaw yow yow mi maye sëy bi nag. waaw alors amu ci droit. am droit ah, maa ci am droit man. waaw mais nag yaa débuté problème bi débuté mën a fenn di ko wax ba ni kii ni gànjang ba mor doom am ah. mor doom ah, ah, léegi léegi lan la mor doom am la kan moo ko débuté eh, eh, waaye kii ni gànjang yow daal netti li nga ne bu bare yow sama kanam eh, laajuma la sa ngénte amul lakk ba ma waxee laaj ma la ma eh la rek la de yow nag am da nga foo fii doo fi ñëw booy def sa mbir ba pare di sa morom nekk wala la sa morom nekk doo def say mbir ba pare ñëw doo dégg nga li ma la wax kii nag amul jom. nettali rek xam nga ne di nga nettali. heure bi bu la fekkee ci bërëb ñu ne doo gis jant tam. yaa ngi soog a nettali waxuma man fi mu toll nii indil nañ ma convocation te xam naa ne comme damay wuy ci te man bi ma demee wax naa gars yi nee naa leen carrément ba moo débuté problème bi parce moom moo maye sëy bi. pour que jàpp waaw. waaw ah, léegi nag bu ñuy dem moom dañuy ànd. kan laay ànd. wala sa convocation dina ñëw man ak yow. maa ngi xaar sama ci loxo nit lañ koy teg. yow foo gis ku ma essayé ñu lay convoqué. yow ni ngay demee dafa ëpp yow nga nga demee yow ngeen a dof hmm. procureur ba mu man invité naa ko sama ngénte lii eh, ban ngénte dimbali ma nag ma dimbali man ngénte li banaa te yéen ku ngeen gis banaa ngénte ku ngeen mës a gis kuy war a ngénte ñu koy convoqué ka jàpp fu ngeen ko gisee ah. laa leen di laaj loolu rek laa leen di laaj. waaw fan nga gis ko ëmb ba diis nga dem di ko wutal. waaye dama ni ko kooku ban fan fan lañ ko bind dañ koy tere. fan lañ ko bind dañ koy tere. demal a génne gàncax dama rek da nga di de. di nga wujj laa nag yow ma duggee di nga fa duggee lu leer laa la wax sa jabar a ngi nii toog mooy eh, teemal man sama génne ma eh, sa eh, yaa ma war a génne waaw dama lay wax lu gën a ah, génne amoo nag sama rek demal nga wuy ji yéen ay ànd yow yow xamoon nga ne yaa kii kan lay àndal kan lay àndal neuf moom yéen a fay kan lay moom mi a dof xam nga yow yow bala yow gëmuma ni sax tribunal ngay liggéey yow sa lii du dëgg yow mii dinaan ma yow war ngaa dem ci lii yow yow liggéeyu waa tribunal yow waxoo dëgg yow waxoo information bopp nga yow da ngay dóor nit ñi yow kii liggéeyul ak benn tribunal te naa ko lijjanti ndegam yaa ngi may dugal bi yow liggéeyul ak benn tribunal yow lay ñaan boo ci duggul boo ci duggul kii day dóor nekkati dugg maa ngi xaar ba procureur jàkkaarloog man ma ne ko fan la ñu bind ci loi ni bul ñaani ñaareel. ah ok nga xool ba situation bi demee nii kii ëmb ba diis kii ëmb ba diis. mais eh, dimbali leen ma man. man di tey lay wusi nga naan yéen a yem yéen a yem. yéen maa leen bañ rek. waaye dama ni yow yaa xam. yow yaa war a xëj ah, yow daal li nga wax bu ci jóg. sa boo wasi ne ñaanal ba yow loolu rek laay xaar man place dong laa soxla. man kii ni ma soofee muy mel ni pom bu ndaw nii. voilà booy. booy jël sa lii wax yow jàppale naa la fu ne. koo jàppale. ba ci la ku ne jàppale naa léegi loo bëgg ma jàppale la ci di lii man ak yow ko bokk nga naa am loo bëgg ma jàppale pelante kenn du ko bokk ak kenn ah bokkuñu ko barki yàlla dinaa la sosal dinaa taxaw yow yow a ma sax yow pelante kenn du ko bokk kenn yow xamoo ma sax pelante kenn du ko bokk kenn maa ngi dem man commissaire fu ma ban commissaire ah. loolu jarul xam jarul jarul xam commissaire cubb moomu convoqué cubb waaw cubb moomu convoqué yow na commissaire yi ci seen bopp association bi ñoo lay porter plainte commissaire du cuune de. benn commissaire nekkul cuune nga naan ñun lañ ko boole. buñ ne un mani ba mani ba sama yoon néew. mais dama rek demee nga expliquer affaire bi ni nga ko ko waxee ni mu daanoo ba moor doom am moo gën ci yow dégg nga li ma la wax da mën a fen rek yaa ngi soo a mën a ngi soog a fen nag. mu jógee hôpital dafa ñëw ci kër gi dama ko bëggoon gis Kiné. maman dama soxla woon Kiné. loo def maa ngi bu baax maa ngi bokk yow sa naqar nu ma lekk mënu ma naan xañ nañ ma lépp tey xañ nañ ma conseillère confidente xañ ma ma femme ma bien ki ma bëgg te bëgguma ko bokk kenn ki ma jox sama lépp boole ma ko dara ki dem ba taxaw fi sama yaay taxaw ci man tooñ ñu la ki ne man lañ tooñ ki ne ñàkkuloo man maa ñàkk ndax petit sourire bi ma doon am ceew képp ku ma ko xañ xañ nga ma bànneexu àdduna dama ñëw juste pour xamal la ni bokkuma kenn te ma bokk kenn wutiwuma leen ndax soxlawuma ko fenn fu weesu ci yow fii nag du sa place sama wet foofooy sa place ma ñëw jël si la yóbbu la kër ga nga ma ci faratas yàlla ak sunas Muhammad lii yàlla ñu ko mayoon moo ñu ko xañ te mën nañu ko mayaat nga baal su dee man lay seet ñu ko tànkam bi na ko dagg ci biir kër gi bu mu fi ñëwati te li ma liyee man ak moom muy sëy bi ne ko bëggatuma dama may sama baat looloo ma taxoon dugg ci biir saal bi pour wax ko ko mu dégg bëggatuma yaa doo wax ki neew ma dara lu may wax bu xam nga fu ñu toll tey gat sa lañ toll tey tey xam nga fu ñu toll ku nekk na jël ki nga jur mu gënal la kee ba far jotee sa ndey ci yow la far dama sama benn bi dong la am góoteel lekk la benn doom bu jigéen bi la am fii laa ko teg comme yàlla sauvé na ko nag duma ko dugal fenn fenn fenn fu koy xañ àddunaam li ma jot a souffrir dafa doy sëkk ci àdduna gis nga keneen bëgg ko téye ji bàyyi ma sama doom fii ma defaraat damay defaraat sama doom boobu damay defaraat sama doom ma li ngeen foog am du benn ma wujj ki ne man takkuma jabar takkuma jabar benn jabar laa am muy kinne kinne bu ma demoon bay takk du ma takk jabar xanaa moment yii ak fi mu tolloon tey kan moo ñàkk du kinne rek moo ñàkk mama bàyyi leen xel ci loolu aussi ma su ma sañoon sama yaay nga te ni ma jàppee sama yaay jële noonu laa la jàppe la nga doon def di ñaw loolu laa la ñaanaat tey nga wax ak sa doom mu ñëw ñu ànd dem sama kër du ma wax ak moom dara la ma doon wax wax naa ko ba pare la ma doon def ak sama doom ji saa yu fayee ñëw ma jiital indiwaat saa yu fayee ñëw ma jiital indiwaat wax naa ko moom ba pare moom kay ci li bëgg rek lay topp may ko baatam la bëgg may ko baatam bu fi ñëwati bu fi ñëwati man nag damaa ba gis lu bu xeetu ak yéen ngeen dimbali ma li wajhi laahi bàyyi sama kër gi damay defar sama doom te feet mu ngi di gis ku gis jóge ci yéen lu mu amoon rek day raaj rësaat ci saa si daf fi mu ne bu leen gisee day tiit ay waaye may leen na ngir yàlla bu demal man damay defaraat sama doom te lu li ngay wax li ngay wax fàttali bu duggaatee ci seen biir kër googu.